Assalamu alaikum alaikum ye Assalamu alaikum alaikum ye Assalamu alaikum alaikum ye. na ko xam ne da nga julli ñeenti rakka ci bisu samedi bi nee na nga julli ca rakk euh, bu jëkk ba ah, nee na nga tari ca fatihatul kitab marratan aqul huwa allahu ahad salasa marratin ah? maanaam nee nga tari ko ci euh, euh, rakk yépp boo paree nga jàng ayatul kursi yi benn yoon ah nee boo ko defee yàlla nee na da lay jàppe ku def aj def omra te nee na bu boobaa saar yi nga doon tari nee benn bu ca nekk xaraf bu ca nekk dinañ la ca jox yoolu ku woor atu yàlla atu yàlla nga boole ko woor ko xaraf ya lañ la wax ne benn xaraf bu ca ne am na yoolu atu yàlla boo woor nag ku boole xarak yi kenn xamul nu mu ndey waaw nee na it yàlla dina la jox yoolu itam ku dee ci xare l'islam bi shahid nga martyr nga waaw nee na itam bu ëllëgee it yàlla dina la boole ci yonent yi muy yiir ci suufu arash nee na yàlla dina la ca boole السلام عليكم